dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu mieux te naturel jus pour cette goûter dormi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp xew jus orange ngir may leen cawarte ak tonus jus corossol amna, na baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bi de dafa baax l'ol si gour ak ay bar baax lool itam si organisme Pouy bi nag toi bar tooy baax si yaram tayit yi leen jus bissap oh, oh dina yok sen kàttan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel vito so exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yahoo gune ak mag emballage civilisé te wóor ak jus vito da am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06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 julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar fa tabaarakallaahu ñaan yàlla sunu boroom sunu kàddu yi fekk leen si jàmm ak salaam ñoo ngi nuyu bu baax sunu DG bu mag bii la fa tabaarakallaahu ñoo leen di nuyu fii ci Sénégal TV ngeen ànd ci ak seen mbokk taalibe Oustaz Mouhamadou Lamine Kane ñoo ngi nuyu waa kër gi yëpp di leen ziar ñaanal leen yàlla suñu borom génn génn dëgëral seeni taxawaay niki noonu itam lañuy ñuy nuyoo président de la ñu koy nuyu baax di koy ziar nuyu mbooleem xalifa généraux yi ñu leen ziare leen ndokke leen bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallaahu waaw tey nag seen émission waxtaanu ajjuma tey ñoo ngi fas yéene ànd ak yenn ci wàllu doxalin réew mi ak melokaanu réew mi ak jamono bi fu mu toll waaye daanaka gis nañu ne jamono ji yëpp fa tabaarakallaahu waaw coow li bari na coow li bari na guddeg bëccëg diggante aji saar ak sonko waaw ah, defe naa ni loolu moo ci gën a siiw loolu defe naa ni loolu moo ci gën a siiw léegi loolu lan la ci lislaam wax lan moo ci atteeb lislaam walla gis-gisu lislaam lan moo tax yàlla sunu borom wàcceen ñu lislaam ak sharia mooy lan mooy daanaka bu ñu demee ba ñu am ci ay problème wala ba ñu jaxasoo daal di ci xool mën a trouver solution loolu loolu la ñu loolu la ñu yàlla joxe lislaam bi loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil li nga xamante ne mooy amul chance mooy li nga xamante ne amul chance parce que yonent bi ba muy wax dafa ne lépp lu leen amalu njariñ loolu bàyyi leen ko lépp lu leen amalu njëriñ bàyyi leen ko te ngeen dem xool li leen amal njëriñ ngeen dem def ko daa maa ko ilaa maa laa ko waaw léegi loolu nag maanaam buñ ko yaatalee daal di koy settantal taxaw xool ko xoolaat ko dinañu xam ne coow li gudd ak bëccëg jàppal baay bi amul amul benn chance ndax ñaari nit lañu ñaari mag lañu ñaari ñaari muskalaf lañu te nag muskalaf mais boo demee ba nga majeur foofu lépp loo fa def bakkaar war na la lépp loo fa def lu dul ab tiyaaba wala lu baax leneen loo fa munta def bàyyil xel ne yàlla sa boroom mu ngi lay bàyyi xel itam itam dina la bindal ak ay bakkaar kon loolu moom lañu war a njëkk a bàyyi xel viol am na am na amul am na amul yàlla sunu boroom ni mu ko waxee dafa leer ci alxuraanu karim daal di ñu koy jàngal mooy mooy bu fekkee ne euh, yow mi nga xamante ne yow yaa wax yow lañ ko def yow mi nga xamante ne yow yaa wax yow lañ ko def yow lañ viol yow lañ indiloo ak ay leeral yow yaa war a wax fii lañ ma ko defee ak nangam ak nangam mooy al alal mudda'i leeral gi mu ngi war ci kaw ki nga xamante ne moom moo woote ne moom moo wax ne man mi man mi lañ ko def léegi nag ki nga xamante ne moom moom lay wax ne moom moo ko def te moom mu weddi ne moom defu ko mooy wal yaminu ala man ankara niki Ousmane Sonko moom lañ ko jiiñ ne ko yow yaa ko def nee na moom defu ko moom mu weddi mais bu fekkente ne te alquraanu karim ni mu ko waxee mooy ñeenti seede yi est-ce que mat na waxul ñetti seede de ñeenti seede ñoo koy gisandoo te bu fekkente ne tamit gis nañ ko gis gu bir gis ko jaxaraan nekkul lu ñu leen nettali tamit yéeganoowuñu loolu mooy atteb lislaam loolu mooy gis-gisu te alquraanu karim yàlla suñu borom noonu lañ ko waxee te bu fekkente ne loolu am na noonu la amee mesu boobaa fa tabaarakallaahu daal di si jël euh, def ko euh, atteb lislaam daal di koy wéyal daal di koy atteb atte euh, daal di koy atte atteb sharia comme yàlla su borom ni mu ñu ko waxee kese mu jeex mais bu fekkente ne loolu amul kon ki nga xamante ne moom moo tuumaal kooku itam am na lu ko war responsabilité mais mais bu rëy rëy war na ko parce que tuumaal na te tuum tooñ mu ngi ci biir leneen nag leneen yëpp mu ngi ci biir te bu fekkente ne li nga ko tuumaal amul gàddu nga àq bi nga xamante ne kenn xamul nu mu toll waaye gàddu ga ay bakkaar yi nga xamante ne ëllëg kenn xamul dégg nga daal maanaam fan nga jëm ak bakkaar yooyu noonu kon nag bu ko defee yooyu mais ñu mais ñu bàyyi ci xel te bu baax a baax gën ci bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne lépp loo xamante ne dafa lënt bàyyi leen ko lépp loo xamante ne dafa fitt na bàyyi leen ko ndax jàmm moo gën lu dul jàmm jàmm a gën lu dul jàmm ndax lislaam bi loolu moo ko tax a ñëw mooy indi fi jàmm mais du mais du yeew fi euh, ay walla yeew fi fitina loolu taxu fi ñëw lislaam kon kon na bu ko defee boobu lii mooy gis-gisu lislaam mooy nañu xool li nga xamante ne noonu la ko lislaam àttee li nga xamante ne moo ñu indil jàmm daal di koy def ñëpp am jàmm wax ji jeex fa tabaarakallaahu parce que yàlla su la boroom wax na yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nettali ko nee na fitina moom fitina dafa tëddi te di nelaw fitina dafa tëdd di nelaw nelawam yàlla rëbb na nag képp ku ko yee yàlla rëbb na ku yee fitina te nag wax naa ko fi mooy ay du yem ci bopp boroom la laanallaahu man ay qaza te mooy al fitnatu naaimatu fitna dafay nelaw laanallaahu yàlla na man ay qazaha mooy ku ko yee mooy ku yee yee ki fitna xoolal histoire boobu rek daanaka diggante ñaari yooyu noonu am nag amul am nag amul ñaata bakkan moo ci dee quatorze bakkan defe naa ni daanaka li ci gën a siiw mooy moom mooy fukki nit nit ak ñeenti ñàkk na ci seeni bakkan fukki nit ak ñeenti waaw quatorze morts am na ci loolu dafa garaaw loolu beneen affaire la kon na bu ko defee fa tabaarakallaahu loolu mais ñu bàyyi ci xel ci yee fitina gu ñu yee fitina gi d' accord mais bu fekkente ne <clears throat> kilifa gi moom nee na dafa génni dem war a dem massage mooy salle de massage nee nañu foofu la demoon nee nañu foofu la demoon gis nga nit lépp loo gis dafa am sabab lépp loo gis dafa am sabab li yow leer na la ne lii nii lii nii boo ko defee nangam la lay indil loolu loolu moytu ko loolu moytu ko moo koy gën walla place bii de maanaam bu ma fi demee dañ may comme ça dinañu ma jiiñee leneen walla dinañ ma xoolee leneen walla dinañ ma tuumaa leneen mais ma toog bañ faa dem loolu moo koy génn ma toog sama kër bañ faa dem loolu moo koy gën kon bu ko defee parce que yàlla sunu borom ba muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu ñuy jàngal walla ba mu ñuy dénk daf ñoo moytandikuloo sunu juróom-ñaari cër yëpp mooy dégg nga sàmm leen seen cër mooy sàmm leen seen cër sàmm leen seen mbooleemi cër dafa war ci muskalaf wa jamiu wa yajibu dafa war ci muskalaf mais mu sàmm jamii jawaar yi waaw mbooleem cëram juróom loxo yi dugg na loxo yi sàmm ko ak tànk yi ak say nopp ak say bët dégg nga ak say làmmiñ rawatina nag kilifa ñu ne yow kilifa nga ñu ne waaw denn waay ñu ne laq nga ñaari soxna mooy denc nga ñaari soxna am nga ñaari soxna waaw ne nañu am na ñaari soxna waaw ba pare waaw léegi nag ko am ñaari soxna nag génn xaaju guddi ne day dem massage day dem ñu massage ko ah mën na am massage la fa doon def waaye moom ala kulli xaale moom doy na waar moom doy na waar doy na doy na looloo tax nag gis nga li may wax nii rek ndax alxuraan moom du juum ay du yem ci bopp borom xoolal rek lu ko ci fekk ak lu mu jot ak lu mu jur tey jii nii kenn xamut lu mu toll ak lu mu fi yàq kenn kenn xamut ni mu mel donc nag bu ko defee moo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax donc daal di góorgóorlu jaayante. maanaam sàmm sunu bopp sàmm sunuy cër ak sunu kéemtalaay kàttan waaw waaw beneen bi aussi moom moom kilifa la Sonko kilifa la ñaareelu point bi mooy nee nañu moom président Macky nee na dafay def ñetti Euh, ñetteelu mandat maanaam troisième mandat waaw nee na moom dafa mel ni daf koo bëgg a def waaw ne daal dafa mel ni dafa bëgg def maanaam troisième mandat lan moo ci gis-gisu lislaam euh, ñépp nag ñu ngi wax nee nañu dafa wax waxeet dafa wax waxeet léegi wax wax waxeet moom daanaka bu ñu demee ba ñu xewal ko fii te ay kilifa waaw di ko def di ko wax te na te yow ñu ne la yow yow yow yaay président yow yaay njiitu réew nga naan te maa waxoon waxeet ah loolu de daanaka doy na waar parce que njiit dafa am lu koy doyee njiit dafa am lu tax mais mais ñu tànn njiit dégg nga ba ñu fal ko fa yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am lu mu jàngale mooy dëggu dëggu wax mooy sidqul qawli mooy sidqul qawli dégg nga dëggu ci say wax xaqan mais ci dëgg-dëgg nee na loolu zeynu diini loolu moom mooy taaral diine nit loolay taaral diine nit loolu mooy taar mais léegi nag bu ko defee daa ku mu neex rek jukk ne man maa waxul li maa ci génni léegi moom bu ko defee ñeneen ñi mu jiite yëpp alors que ñoom mais su boobaa naka la ñuy def mais su boobaa nan lañ def lan la war a def parce que jiite ay nit foofu responsable nga lu tax ma ne la responsable la waaw ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak yàlla suñu borom jàngale ko mooy ñi nga jiite. yaa war a yar danga war a nekk ci ñoom bon exemple mais ci wàllu jikko ak ci wàllu jëfin yu rafet ak ci waa ak ci wàllu doxalin bu rafet ak ci wàllu yëpp ak ci wàllu côté yëpp nag dégg nga waaw ba bu ëllëgee boo fi jógee ñëpp namm la jooy la ñëpp namm la jooy la ñu ne ndeysaan moom de wa waaw waru feewoon jógee ndeysaan waru feewoon jógee waaw loolu yaa koy may sa bopp mais bu fekkente ne dangay toog ñëpp bëgg yow nga dem ñëpp bëgg yow doo ko doo ko yow nga jóge fi nit ñi ñëpp mag ñeeg xale yeeg paa yeeg meer yëpp bëgg yow nga jóge fi ah mais boobaa nag yonent bi nee na xoolaa xoolaatal sa bopp na nga xoolaat sa bopp bu baax a baax a baax a baax xoolaatal ni ngay doxalee. xoolaa xoolaatal say jikko parce que nit li mu am moo ko may boppam réew mi ba ko soxlaa nit ñi ñoo la jàppale nit ñi ñoo la xeexal ñoo la soutenir ba ñu fal la teg la fa kon nag nit ku ñu wóolu ba ñu dënk la war nga mun a goree gore bu toll nii daal di leen delloo lu ko gën a rafet daal di leen delloo jukkal mooy lan d'accord baax na waa mel na ni temps bi waxtu bu ñu amoon jeex na waxtu bi xooj nañu fa tabaarakallaahu incha allahu taala jeexaluñu oh, daa bëggoon na ci génn xuus lal lan moo ci waa gis-gisu lislaam daanaka lu ñu amoon ci waxtu jeex na kon daal fii lañ leen di tàggoo te te incha allahu taala kon tey lii moo nekkoon seen waxtaanu ajjuma yal ñu yàlla jàppale yàlla yàlla def jàmm ci biir réew mi saxal fi jàmm saxal fi barke saxal fi wërsëg kër gii di Sénégal 5 TV yal na ko yàlla yëkkati kaweel ko ñi ci liggéey yëpp yàlla na leen yàlla gën dëgëral barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma min xasanatin te fa min allahi wa ma min xatain fa min nafsi lakum minni alxub wa duaa dawman wa salaamu aleykum wa rahmatullahi وبركاته Vidocop. explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp ko Sénégal si anam yu sel naturel jus pour seen goûter dormi collation ca bureau ba ngénte maanaam jus orange ngir may actonus. ak tonus jus carasol, amna, na lol si yaram ak ay am solo gingembre bimom, moom dafa baax lool si gour, ak ay vertu baax itam si organisme Pouy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi jus bissap oh, oh dina yok sen katan boole ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag vito so exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag emballage civilisé Tour. wóor ak jus vito da amchois am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 explosion de saveur dans une même